alhamdulillahi rabbil alamin ala nasmil yawqitiya hamidu yallahu samsi rahmanu basiqatan wabil kawakibi ya rimu alhamdulillahi rabbil alamin ala nasmil waqiti ya hamid ya law hamata nafsaka ya mahmud munfaridan haqal mamidi ya hamid ya law hamata nafsaka ya qaharu muqtadiran halal khalaiqi ya hamid ya law wa kon bu ngeen déggee wote bobu xibaar jowati na jëm ci ndigal Cheikh Mamadou Bassir Ndaw yàlla na fi yàgg lool te wér ak i rakam kon ñu ngi yëgal ñëpp gàmmuk Daaru Rahman si ndigalu Seydi Mamadou Bassir sëñ Mokhtar Ndaw ibnu Seydi Muntaxa Ndaw borom géej gi kon ñu ngi ciy woo ñëpp bu ngeen déggee woote boobu nag la 11 janvier ñu ngi ciy woo képp kuy jullit نين لا تي وو كون ني جوخ سيغ مصطفى تال كادو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه سوير الوان وتمكين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مباكي سنغال واي مباكي وا ادنا ييب bu ngeen déggee bay di tedd yooyu jëmm ji sell ji doon yëkkati da ngeen xam ne xew-xew am na programme am na programme bu mag bu mag jógee ko ci ndigalu Seydi Mouhamadul Basir xalifa général de Daaru Salaam li taifatul Xamariya yàlla na fi yàgg loolu tànd ak waaye ndigal jóge na ci sunu sëriñ sunu yaakaar tey ak ëllëg di Seydi Mouhamadul Muxtaar ibnu Seydi Mouhamadou Muntaxa mom mi nga xamanteni moy defal bayam Seydi Mouhamadou muntaha Ndaw gamogu mag fele ci daru Rahman Gambi. waye bala may duggu foofu bëgg a wax tuuti kan moy Seydi Mouhamadou muntaha Mouhamadou muntaha domi maulana Seydi Omar Ndaw la Muhammad Muntaxa Seydi Omar Ndaw moy way juróom wu Muhammad Mouhamadou Muntaxa mu ngi gane aduna 1934 mu ngi génn àdduna 2004 kon boo calculer dundam gi yëpp mu ngi koy jeexal ci allahu subhanahu wa taala ndax 66 ans la dund ñu ngi ñaan yàlla yàlla yokk leeram te taas ñi ci barkeem Seydi Muntaxa Ndaw saayibul karamaat dëkk bii nga xam ne moom lañ dënmal pour defi fa gàmmoo li ko may dëkk boobu li ko may àll boobu mooy dafa bokk ci ay karamaam Sénégal histoire bu ñu dégg Seydi Muntaxa Ndaw mooy ki nga xam ne moo dawaloon oto bi ci géej gi jógee Gàmbi ñëw ba ci bag bi wax borom bag bi ne ko dama bëgg nga jàlle ma waaj am na mu waxee moom sëñ bi jël oto bi dugal ko ci biir ndox mi loolu kenn defu ko Seydi Mouhamadou Muntaxa mi ñuy waajal programme bii fële ca Daaru Salaam fële sa Daaru Raxmaan Sàngel Gàmbi moom moo ko def doomam nag ñi ko wax Seydi Mouhamadou Muxtaar suñ sëriñ yàlla na fi yàgg loolu tànd ak baayam joxoon ko ndigal mu koy def ci biir dundam bi baayam génnee àdduna ba léegi mu ngi continuer bis boobu it di ko def moo ñu jox ndigal ñu woote ci lii woo mbokki taalibe yëpp yëgal leen ko fu taalibe mën a nekk sëriñ bi nee na joxul kenn ngant ci bisam bi nga xam ne moom lay defal baayam fële ca Daaru Rahman di Seydi Mouhamadul Muntaxa Ndaw Seydi Muntaxa Ndaw nag bisam képp ku si ñëw rek yàlla na faj si aajo moom loolu yàlla dogal ndax saahibul karamaat la wali ba muy dund buy def ay karamaat bu dee la karamaatam di gën a bëri ndax jëmm la joo xamante ni dafa def lu xotti xaada nag dëgg-dëgg lu xotti xaada mooy oto si kaw ndox kenn mosu koo gis loolu Seydi Mouhamadou Muntaxa rek moo ko def moo tax nga dégg woykat bi ne wa innoo la sax suñ xaariqul xaada siyaarata fi baxri xaariqu xaada kon loolu man la bu ko defee eh, ñu ngi ciy woo waa Daaru Raxmaan ak li wër Daaru Raxmaan lépp di si woo waa Gambie waa gine <clears throat> waa Mali ñi nga xam ne dañuy ñëw si bis bi yëpp sëriñ bi nee na joxul kenn ngant euh, bis bi nag <clears throat> sëñ bi mu ngi koy woote yàgg ko def di ko ànd ak ay mbokkam sëñ bi nee na mu ngi woo mbokkam yëpp yëpp mbokkam yi nga xam ne ñoom la bokkan Mawlaana Seydi Alaaji mu ndaw li ko commencé ci kër Seydi Mouhamadou Mansour ba si kër Seydi Mouhamadou Makiyu ñëpp sëriñ bi nee na mu ngi leen di woo bawut genn kër du tudd kenn waaye bawut genn kër su waxee maa ngi woo lu ko dalee si kër Seydi Mouhamadou Mansour ba si kër Seydi Mouhamadou Makki di caado Seydi Alaaji moo ndaw kon woo na njaboot gi yëpp bawul kenn boo woo na njaboot gi yëpp Seydi na nag tànqab lawul kenn bu xamee bis képp ku mu woo rek ci bisam bi war ngay ñëw ndax taalibe yi ba taalibe yi daj kenn ku ne boo amee bis moo xam naqar la wala safaanu naqar la Seydi Muxtaar dana taal otom ba ñëw fekk la fa nga dëkk dugg si ñax yi dugg si gajj bi tawte ay taalibeem jaral ko loolu yëpp ku mel noonu nag su xootee bis di ko defal baayam dëgg-dëgg taalib yi war nañoo takkaayu war nañoo gën a euh, euh, fonk lu ñuy def war nañoo war na leen a jaral ñu passé fu ñu mën a nekk ba ñëw daaru rahman fekk fa sëñ bi mu defati comme dam daan defati da gàmmoo la goo xam ne dafa am baatin lool ñu yàgg dem si gàmmug yëpp yàlla suñu borom yokku na seeni i yëf wallahi hasim yàlla xam na ko bu ko defee ñu ngi woo ñu nekk bitim réew ñu nekk Italie ñu nekk France ñëpp ñëpp ñu ngi leen di woo waaw képp koo xam ne daal muxtaaroo na nga nekk foo mën a ne si àddina rek sëñ ne na mu lay woo ndax ma wax na ne képp ko sopp rek si muxtaaroo na nga bok kon nak modou modi ñi nek France ak Italie yeb serigne bi neena mu ngi leen di wo ci gàmmo gi bawul kenn ñëpp ñëpp bawul kenn bawul kenn euh, gàmmo gi la go xamanteni yalla mu ngi dogal bi bayam noppalo ba legi serigne bi mu ngi koy continuer di def gàmmo gi sak ane muy gëna ris sak ane muy gëna amager sak ane muy gëna jëm ci kanam ñing koy sante bu baax di ñaanal suñu borom subhanahu wa taala yalla gëna a taxawayam yàlla gën ko yokk yàlla gën a saxal mbir mi bu baax a baax a baax a baax di gërëm bu baax njabootu sëñ bi si boppam ñoom itam ñu ngi bay seen waar si yëfi bu baax a baax a baax ñu ngi góorgóorlu fu seen bàyyi teg seen tànk ñu ngi ko fa teg ñu ngi jàppale seen baay di jàppale taalibe yi comme ni ko sëñ bi bëggee rek ñoom ñu ngi koy liggéeyee noonu ñu ngi koy doxalee noonu gàmmu gi daal bu ko defee sabab bi fii la jógee Seydi Mouhamadou Mountakha la ko sëriñ Mountakha di hooteel Seydi Mouhamadou muntaha saibal karamat waxna len karamam sank fim joge ak Seydi muntaha ban ane la gane aduna ban ane la génn aduna kogu la saxal ba legi di defal gamo gi Seydi muntaha nag eh, lim defer ci biir senegal xawna bari lol ñu bari bari bari fi ay boromi tur len buñ len leen tuddool Seydi Mountakha moo leen taal moo kos kon bu ko defé jëm joju bu xootee programme nekatu fi way njabootam ñu fi way arab dañuy faral di wax ne alwalidu sirul abik Dom ak nila. ni la benn lañ def kon Seydi Mouhamadou Munta Muxtaar Ndaw bu woote gàmmo gi mel na ni Seydi Mouhamadou Muntaxa radiyallahu taala anhu moo koy woote mel na ni Seydi Alaaji Mandaw moo koy woote gàmmo gi nag sëriñ bi mu ngi ñaan yàlla képp ku si ñëw yàlla na nga ñëw si jàmm yàlla na nga dem si jàmm yàlla na bu la dara gàllankoor yàlla ku si ñëw ku ne yàlla na nga yokk yokk ci saayir yokk si njub yokk si euh, côté bu ne côté boo mën a analyser doomu aadama rek ku si ñëw sëriñ bi nee na mu ngi lay ñaanal yàlla yalla nga yokkoo non bu ko defé yakarna kon kàddu yi du mën a bëri ñu ngi jox bu baax Seydi euh, Serigne Cheikh mbake Dramé mom nga xamné ne la ci serigne bi bëgg serigne bi lool jeex tak si mom ñu ngi koy jox kàddu gi moom itam mu wax ci lim ci war a wax alaykum wa rahmatullahi taala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk ñu ngi leen di nuyu bu baax képp ku fi teew ci turum ak si santam muy góor muy jigen muy mak muy ndaw. di jiital ci nuyoo bi sunu sëriñ sunu xarit sunu soppe Cheikh Mamadou Muxtaar mi nga xam ne ginnaaw yàlla moo tax ñu dajee si jotaay bii nii dëgmal bis bi nga xamante ni moom lay defal waay juróom ñu koy wax Cheikh Alaaji Muntaxa Ndaw eh, di siyaare ñu fi toog ñëpp ci fi toogal sëñ bi sëriñ muuru taal ak yaa Seydaa yi toog ñëpp rek ak suñuy jànkat comme ni ko sëñ Mourou waxee rek sëñ bi moo ñu jox ndigal si lii nii ñu ñëw wooteel ko bisam bi nga xamante ni moom lay dëgmal fële le 11 janvier 2020 si Gàmbi moo ñu si jox ndigal ndax waxtaan si ñu moom guddi waxtaan nañ si moom ba mu jox ñu si ndigal ne kon manis ko ko wooteel nga xam ne tey waa kii bi nga xamante ni ñoo waa TV bi nga xam ne tey ñooy def kii bi jotaay bi ak ñun suñ ko jege woon moom ñoom ñoo koy def mais nag ki nga fi teewal a ngi nii di jaar baat di doom di lépp si moom kon mel ni sëñ bi moo teew comme ni ko kilifa yi waxee rek ñi fi jiitu woon maanaam ñi ngi woo ñëpp ñu kenn mm. di jiital si woote bi eh, ku ne xam ne ne ku fi yàlla fal mm. yaa fi nekkal yàlla si kaw suus ndax si kii di président Macky Sall mm. ak mboolem famille njabootam eh, muy soxnaam di soxna Marème Faye ak mboolem kilifa diini yëpp yaa sayda yeeg ustaas yi asaatis yëpp bowuñu kenn borom xam-xam yeeg kër kilifa diine yëpp rek murid la xaadir la laayen la ñeseen la ñëpp bowuñu kenn rek ndax buñ ne ñëpp rek mooy ñu ëpp ñu kenn kon woo nañ ñëpp si ndigalu Cheikh Sidi Muxtaar Ndaw ibnu mun Muntaxa Omar Ndaw ñu ngi woo ñëpp képp xam ne tudduñu ko rek nga xam ne xëy na suñu xel moo la fàttu mais am nañ yéene woo ñëpp kenn mais nag dafa fekk ne matale mënul nekk li ñuy wax daanu xal nga dajul suuf waaw kon loolu rek lañ si jublu bu ko defee mboolem daayira yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñoom si jotaay bi tamit dinañ jox sëñ bi moo àggale si yéeneem woo jotaay yi nga xam ne te ñooy mboolem daayira yi noonu ñu ko ne di woo mboolem koo xam ne jege na si àllub Gàmbi boobu moo xam Daaru Salaam wala ku mën a doon ak waa Eaux et nga xamante ni daaw gis nañ seeni taxawaay nga xam ne ñu taxaw si taxawaay bu rafet comme kontaan nañ si lool sëñ bi am na si mbégte loolu mi ngi leen si remercier bu baax a baax di ñaan fi ñu taxawoon daaw lu ko raw ñu ñëw taxaw foofu noonu ren moo xam yor ndox mi la moo xam ñu yor wàllu courant bi la eh, suñu kii jàllo bi Daouda Diallo alaaj Daouda Diallo mi nga xam ne moo yor sécurité Sénégal bi waxtu bi ni ñuy wax eh, nga xam ne moom wàllu transport bi nga xam ne moom la ko yàlla dénk kon moom it ñu ngi ko siy woo mboolem ko xam ne rek sunu kàddu yegsi na si yow rek moo xam fii ba biti réew mm. Sénégal Espagne Arabie Saoudite Égypte Caire Inde bawuñu kenn mm. képp koo xam ne rek kàddu bii ñu wax ni jot nga ko rek mm. loolu mooy sa invitation mënuñoo woo ku ne téléphone mënuñoo whatsapp ko ne en même temps mënuñoo jox ku ne carte invitation mais daal sëñ bi mi ngi woote yaakaar naa dañ na ñëpp incha allah sëñ Moodu yaakaar naa loolu matale na bu ko defee muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw kilifa la asatis la yaa sayda boobu ñu kenn daal suñ sañoon suñu bis bi rek comme ni nga ko waxee rek nañu ñëpp ñëw ruise si ndigalu Seex Alaaji Muxtaar Ndaw di sunu xarit di sunu soppe di sunu sëriñ di sunu wóol rek nga xam ne ginnaaw yàlla jotaay bu amee lépp moom moo ko waral duñ ci bëri suñuy kàddu ñi ngi jaajëfal ñëpp rek di fas yéene jël kàddu yi joxaat ko sunu xarit sunu soppe nga xam ne moom moo fi teewal sëñ bi incha allah ko defee mu sos lenn si li nga xam ne sos nañ ko mottali jottali kàddu rek incha allah bu ko defee ñuy ñaanalante te jéem a yeew nga ngi bëgg guddi incha allah asubillahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim ginnaaw bu sant yàlla bu baax a baax julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki sénégal mbokki gambi mbokki diaspora bi yépp waaw képp koo xamante ne suñu kàddu yegg na ci yow rek ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah parce que ne woote suñu bis bu màgg bi suñu bis bu tedd bi waaye bis bi nga xamante ni moom la ñuy waajal fële ci Daaru Rahman jàpp nañ ko la 11 janvier man nag maa ngi wax ci kàddu président daayira Maxtaaruna muy Assane ah, di woo mbokki daayiraam yëpp ak mbokki taalibeem yëpp waa kay ñu ngi ci woo mbokki daayira euh, ansaaru laay mbokki daayira ahlu batar mbokki daayira euh, naajina waaw ñu ngi woo ñëpp rek bàyyiwuñu kenn waaw képp koo xamante ni daayira nga rek bu aaju daaru salaam ñoo ngi la ci woo waaye daayira ahlu mahabba ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo xam naa daal euh, lim daayira par daayira dina doon loo xamante ni lu ñuy tële lay doon waaye képp koo xamante ni suñu kàddu yegg na ci yow rek ñoo ngi la ci woo bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa taala wa barakaatu maa ngi nuyu sama mbokk jigéen ñëpp di nuyu suñu kilifa yi fi toog waa di sant ñëpp daal di gërëm ñëpp man soxna Umu Xayri laa tudd Touré waaw dama leen di wax rek sama mbokku jigéen ñi suñu programme bi ñuy amel fële ci Gambie di am la 11 janvier di ci wax sama mbokku jigéen ñëpp nañu teew te ñëpp te képp tamit kuy ñëw na nga solli yu comme que ay kilifa diine ñoo fay daje sama mbokk jigéen ñi tamit maa ngi leen di ñaan ñoom ñëpp ñu teel a ñëw comme jigéen ñoo programme bi ñu ñëw nekk ci organisation bi nekk ci toogu yi ñëpp daal maa ngi leen di invité képp ki nga xam ni yaa ngi si àdduna bi muy jullit képp ku mënti nekk daal ñu ngi lay invité si suñu jour bi euh, di wax tamit sama mbokku jigéen ñi képp tamit ki nga xam ne dégg nga kàddu bi ak képp ki nga xam tamit dégg nga information bi nga jàllale ko parce que nit matul di invité tamit ministre yeeg député yeeg ñëpp bàyyiwuñu kenn daal di wax tamit euh, xalifa yi daayira yi muy tiijaan yeeg murit yi ñëpp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 di leen nuyoo ci làmmiñu sëriñ bi mu sëriñ Mouhamadul Muxtaar nga moo ne mooy suñu waalidu mooy suñu sëriñ mooy suñu lépp ci leen leen di nuyu nuyu waa aljana muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. lu waral jotaay bi comme ñi fa jiituñ ko waxee gàmmu la ñuy wootee li fa jot a jëb yëg déglu ngeen ko kanaa ñu yokk ci rek ñi nga xam ne ñooy xalifa seen roo yi ci senegal ñëpp. jiital ci sëñ Mouhamadul Bachir al Khalifa di ñaan yàlla mu yokk fi lool te ànd ak wér buñ ko tuddee rek dafa mel ne laafaale nañ mbooleem xalif général bu ne ci réew mi bawuñu kenn buñ limee duñ matal xalif généraux yëpp ñu ngi leen di woo ci gàmmu googale naka noonu ñu ngi woo bépp muqaddam boo xam ne xaju na ci kër sëñ Omar Ndaw ak foo mën a ne sa taali fu mu mën a ne ñu ngi lay woo ci bis bii di gàmmuk Daaru Rahman Daaru Rahman nag dëkk la boo xam ne mu ngi fële ci Gàmbi suñ ko waxee kon dana ñëwoo président bu Gambie muy Adama baro ak soxnaam ak mboolem gouvernement bu aju ci moom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis boobu Daaru Rahmaan di woo bi yëpp na ñëpp ñëw ku ñëw xaaji boo fi indi yàlla dina ko faj Daaru Rahmaan dëkk la boo xam ne faju xaaja ko tax a jóg lu fa waay indi lu mu mën a doon ci haduna dina faju tawoon aw karan sëñ Muxtaar gàmm gi mujj a gàmm waxoon na ne bi ngeen paree ma ñaanal leen garanti leen ñaan gi sëriñ bi ñu may wax loolu bëriwut ma ñaanal la garantal la ñaan gi ba déwén ngeen ñëwaat kon ku xam xaajo yóbbul daa raxmaan na nga ñëw soo ñëwee nga labal si yéene ci loole mu faj ko mu ñaan yàlla mu faj ko tawxaan aw karxaan su ko defee ko ñun sëñ bi fi toogal kàddu fi jotu jaar yëpp yaakaar naa rafet na kon defe naa woo nañ ñëpp di xoo meeru Daaru Salaam bi Moustapha Thiam ñu ngi ko ca woo ci bis bi di xoo meeru Poos Alimani ñu ngi ko ca woo di xoo gës gouverneur bu Ñooro waa Osso Forêt Gumba Ngay Gumba Ngay mu ngoog ñu ngi ko ba waa Eaux et Forêts ak kii tudd na ko sànq muy ministère de euh, transport moom it oto yi nga xam ne fu ne la ñuy bàyyeekoo di ñëw war a jéggi frontière ba frontière kon ñu ngi ñaan mi def ak jàppandal ci yoon yi ba ñëpp a mën a dem ci jàmm del ci si jàmm ñu gàmm si jàmm te yàlla yàlla na ko gàmm gi parce que ñoo mandoo bindoo ne ne wa kullu man jaddali mawloodi yax simoo fa fawsahu bi nabi xayru munkatimi kon gàmm gi lu ci waay def lu ci waay def lu ci waay def lu toll ni peppam sarra da nga ko gis sa texe mooy àjjana kon gàmm la ñu woote na ñëpp ñëw baw ñu góor baw ñu jigéen baw ñu mag baw ñu ndaw baw ñu murit baw ñu tijaan baw ñu xaadir baw ñu laayin képp ku dégg kàddu gii jàppal na mooy soode xalagu nag moo daju suuf ni ko sëñ Mbàkke waxee sànq kon xoot ne ñëpp lii moo la ñu indi ci kàddu sëriñ bi su ko defee sëriñ bi nag mu ngi woote ba tey jiital ci ay njabootu directam mooy ñu bokk ak baay mooy ñu bokk ak baay mi si doomi sëñ Muntaxa yi ñëpp alaaji Saadix ba ci gën tuuti ñëpp ñu ngi leen di woo bawuñ kenn góor ña ak jigéen ña mu ngi wooteem ay doomi baayam xalifa Bachir doomam yi ba ci doom Seydi Makki yu ñëpp rek comme ni kii waxee ñëpp ñu leen di woo bawuñu kenn kon lii ma waral jotaay bi su ko defee kon ñu tàllal loxo yi rek ñu def ñaan ba beneen yoon auzu billahi min asheytan irajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmi din iyaka naabudu wa iyaka nastain iyaka naabudu wa iyaka nastain iyaka naabudu wa iyaka nastain وقد هوايجنا ربي بلا محن بحبة الله يا حنان يا الله وقد هوايجنا ربي بلا محن بحبة الله يا حنان يا الله وقد هوايجنا ربي بلا محن بحبة الله يا حنان يا الله كثير علي وتكريم بعدد بقنية الله يا جواد يا الله محمد اهدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الضالين محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق